yu général li ma fi gis bu weesoo Ousmane Sonko Macky Sall loolu ci gën a ndaw ay kilifa diine yoo xam ne dañoo gedd réew mi billaahi lasi laa ilaaha xayruhu 2024 gi du leen fekk mm-hmm. waxoon naa la ko ci émission bi passé am nga am nga am nga loo jot a gis mm-hmm. am na kilifa yoo xamante ni dañoo gedd réew mi fi may wax ak yow nii am na ci ci ci ci opposition bi ñoo xam ci au pouvoir bi ñoo xamante ni billaahi la si laa laa xeeroo ci gis kilifa yu bëree bëri yoo xam ne danañ la bett. Euh, jërë ngeen jëf a bi leen nuyoo ziar leen yéen ñu faral seet si Serigne Cheikhouna Kaye Ba mu nekk xamante ne fan yii passé génn def émission bu am solo lëmbi àdduna mu wax ci wax yoo xamante ni bàyyi na xel gis nañ ko aussi dinañ waxtaan ak moom ci actualité rawatina mbir Ousmane Sonko mi xamante ni woote waat nañ ko diggante dañ koy bàyyi mu nuyoo ñu continuer waxtaan bi sëriñ Cheikh naa ñu ngi lay ziar aouzu billahi min asaytaani fii kulli mawdihin wa fil awtaani xasbuna oh, allah wa nihmal wakil xasbuna allah wa wa rahmatullahi xamante ni ñëpp teg seen bët ku la xam-xam ne boroom xam-xam nga yàlla may na la ñu gis ne Ousmane Sonko woowaat nañ ko le 23 bi di ñëw digganteem ak Adji Sarr ak ni mu météwoon bi passé tey jii loo gis ci bés boobu. général le 23 moo tax ma génn di wax ak askan wi ndax buñ tollee ci jamono joo xamante ni ñi ngi jëm ci ay jiyee boo gisee ma commencé hasbunallah wa ni'mal wakil mooy li ma gis képp ku am képp borom xam-xam bu nekk ci réew mi te gis ko wala bépp borom wilaya bu nekk ci réew mi te gis ko te génnoo wax ak askan wi mën naa wax ne yow complice nga. Mm-hmm. général bi la si laa xayruhu maa ngi tàllal kilifa diine yi. seen sama loxo di tàllal kilifa aada yi sama loxo di tàllal askan wi sama loxo ñu xam ne senegal gi dëkkub jàmm la dëkkub lislaam la waaye dëkku mag ñu baax ñi la mhm. lii may gis nii baaxul ci kenn ci kenn mhm. ñi nekk bitim réew mënuñ tuñoo nelaw ndax seen njaboot gi nekk fii mhm. ñi nekk ci biir réew mi mënutuñoo nelaw ndax seen njaboot gi nekk fii te lii gën doy waar ci yim yëf yi te yéeme ci mooy ñi ci doonul dara ñoo ci ñoo ci loru. dama dégg sànq sa biir wax nga ne li ma gis li ma gis li ma gis ñu bëgg nga leer noonu li ma gis li nga koy faral di wax dafa bëri. lan nga gis suñ mënoon a ñaan président de la république Macky Sall. Mhm. mu annulé le 23 bi donte da koy jàppaat beneen bis sax. moo gën moo gën. Mhm. waaye le 23 bi baaxul ci réew mi baaxul ci kenn billaahi la si laa xeeroo. maanaam boo sañoon dañ koy arrêté 23 bi xool beneen jour. ñu toog waxtaanee réew mi. Ah. ndax àdduna jaru ko. alal jaru ko développement jaru ko ndax lépp lu waaye man di am taw moo jàmm amoo dara hmm. jàmm boo ko amee am alal juru jeexit du la jariñ dara hmm. développement boo ko amee ah, taw moo jàmm it du la jariñ dara te jàmm mi Sénégal ñëpp ci war a jóg tàllal loxo te ñi xam buñ noppee dañuy mujj yem ak ñi xamul dama gis euh, bii passé bi mu reyee xale bu ndaw bi dëkkoon fële euh, ca côté Kër Massar bi waa ji dafa génn papaam mu ne ñoom ñaar ñoo rey sama doom muy Macky Sall ak Ousmane Sonko loolu jeex ba mu wax ko wala waa xam nga dañ ne ko boot bukki xaj baw la. coow li yëpp mën nañ ko lijjanti ci benn bis. ci benn ñaari nit ñii képp Ousmane Sonko Macky Sall bu ñu toogoon waxtaan. Mm. mu jeex tàkk. Mm. loo xam ne nag ñaari nit kese la te nekk ba bëgg a waa réew mépp su boobaa moom day jar sax ñaar ñoo ñu génne leen bàyyi réew mu nekk ci jàmm. macha allah muy Ousmane Sonko di Macky Sall. Mm-hmm. nañ taxaw temm ci jàmmi réew mi. na bu kenn bañ a jàpp fi fi nga jàpp rek ndax billaahi la si laay laa xeyroo li may gis nii lii may gis nii ci réew mi Sénégal ba Sénégal amee ba tey mos ñoo déglu mel noonu te lépp ci ñun lay delluwaat rek ñun ñun doomi réew mi. mën na noo xam lan mooy problème bi dëgg-dëgg. problème bi du lenn lu dul àdduna rek. ndax la ko suñu suñu kilifa ga waxe woon ki nga xamante ni daa nekk ci ci ci nguur gi nu mu mën a def ba gën fee toog dong moom lay def ki nga xamante ni itam daa nekk ci opposition bi nu mu mën a def ba toog dong moom lay def ñaar ñi nag bu fekkente ne ku nekk yaa ngi jiital sa intérêt rek ba ñëw ci dara. jàmm du ma sa am mhm. kon nañu woote jàmm ci réew mi man lii may wax nii damaa bëgg ñëpp dégg ko mhm. président Macky Sall Ousmane Sonko ku man di doon nañu woote jàmm ci réew mi nañu woote jàmm ci réew mi lii may gis ni billaahi la si laa laa xeeroo Sénégal rongo ñu bëree bëri ak deret yu bëri gis naa ko fi mhm. bëgg may ñaan na képp koo xamante ni yàlla man lool na la ko boo xëyee bisub talaata bala ngaa génn sa kër wala boo génnee sa kër na nga jënd mbuusi ndox nga saraxe ko damay faral dégg nga ne Macky Sall bu ñu defar réew mi bés bu fiy jógee mën na yóbbaale ñu bëri. réew mi général li ma fi gis ba weesoo Ousmane Sonko Macky Sall looloo ci gën a ndaw ay kilifa diine yoo xam ne dañoo gedd réew mi. billahi la si laa ilaa xayruhu 2024 gi du leen fekk. Hmm. waxoon naa la ko ci émission bi passé am nga am nga am nga loo jot a gis. Hmm. am na kilifa yoo xamante ni dañoo gedd réew mi fi may wax yoon yow nii. am na ci ci ci ci ci opposition bi ñoo xam ci au pouvoir bi ñoo xamante ni billaahi la si laa laa xeyroo da ci gis kilifa yu baree bare yoo xam ne danañ la bett ndax ndax seenu torox ak seen sippil daraja ak général wallaahi ma sif lépp kenn mënu ko wax. kenn mënu ko waaye nañ jug si réew mi te ñaan si réew mi. dañu gis ngay joxe ay kaaraange kaaraange yoo xam kaaraange yu am solo la. nu gis ni actuellement réew mi jaxasoo na est-ce que ku nekk nga mën ko yombalal kaaraange ba mën ci jot. kaaraange daa mënut a ñàkk général. Mhm. général ab jullit daa war a am kaaraange. Mhm. jéey yi ngay gis ak ah, natt yeeg jafe-jafe yi bis bu set ñi ngay gis ñi nga xam ne ñu ngi leen di rey ci manifestation yi wala ñu leen di rey ci yu mu mënti doon booy xam ne woon sax sa dëgg-dëgg ñu ngi woon ci manifestation yi. Mhm. dem di jàll wala nangam sàngam. kaaraange daa mënut a ñàkk ci ci doomu aadama bi doomu aadama bi doo wut kaaraange ndax da ngay xeex wala dara guerre sax boo ciy dem di nga wut ay sile yoo sol wut ay arme ngi ngir mën a mucc waaye réew mii ma gis nii bépp ndaw maa ngi koy wax di ko waxaat bépp ndaw boo xamante ni jóge ci sa bopp wut kaaraange billahi lesi laa la xeeruxu lu jógee fu ne dan la dal lu jógee fo ne dan la dal lu jógee fu ne dan la dal bëgg naa xam façon kaaraange yi ngay liggéey ku ñëwee da nga koy jox wala kaaraange genn lañ ci liggéey mhm. kaaraange benn lañ ci liggéey muy jaaro ak ndomba gi. Mm-hmm. ndomba gi yaakaar naa réew mi moom duñ leen ko présenté te mm-hmm. ñëpp xam nañ ko wax dëgg yàlla alhamdulilah rabbil alamin mm-hmm. ndomba la goo xamante ni ñoo koy ëw ñoo koy defar ñoo ñooy def lépp yónnee loo ko nga takk rek moo ci des. fii may wax yow ni ay liggéey laa yor waru woon sax génn di wax ndax xat. waaye lii ma gis ci réew mi général bu ma ko noppalee day mel ne man damaa bokk ci nga xamante ni ñoom ñoo war a ñoom ñoo war a taar réew mi. ñoo war a taar réew mi te ñun lépp loo xamante ni jug na ngir jàmm réew mi da ñu ci gis waaye lépp loo xamante ni jug na ngir ngir loo xam ne day lor réew mi loolu ñun danañ taxaw lu ñu man défendre ko. mais du ñàkk parfois euh, nga jég saay ne xaal ma xool réew mi fan la toll booy xool loolu taxawaayu réew mi noo ko gisee. ñi ëpp ci réew mi li ñuy xeex sax comprendre luñ ko. Mm-hmm. wallaahi masim ci côté Ousmane Sonko ak ci côté Macky Sall waaye général li gàtt te wér mooy Macky Sall bu fiy jugee. Mm-hmm. wallaahi masim fekk nga ab Wade jugee fi fekk nga Abdou Diouf jugee fi. fekk nga Senghor jógee fi waaye jógeewul mu Macky Sall ci réew mi doo mas a gis jógee gu mel noonu. comment dafa mel ni commencé na sax. ak guy buy daanu foo toll da dégg tëll ji xob ya tasaaroo buy ya tasaaroo. Hmm. waaye général yàlla na yàlla def ci réew mi jàmm. amiin euh, dañuy continuer ak yow ba tey dañuy gis ngay gis ay euh, di faral di wax naan façon seet bi ngay seet ñu bëri daw wut si la lan mu waral lool ñëpp ñëw wut si la. waa seet boo ko mënee te di ci dimbali nit ñi tax. ndax général yow xam nga mu baax ci la ma nekk. Mhm. yàlla dogal na itam li ñuy woowee alal bàyyiwuñu ci ci mbir yi. Mhm. dimbali nit ñi te yàlla tax mooñ ci bàyyi loolu duñ dañ te di ko wax te ñi ñuy dégg ñëpp xam nañu si loolu lañ ne. Mhm. ndax wax dëgg yàlla ku yor tool di bay yor say daara di leen dundal. soo xëyee gàtt gàtt da nga génne deux cent cinquante mille joxe ko dépense kooku yaakaar naa toog di wax nit ñi ak seet mun laa may li nga li nga am ñu bari nag di ma woo ci réew mi naan nu sëñ diw de nangam sëñ diw lekk na sama xaalis sëñ diw damaa bloqué surtout ñi nga xamante ni dañu bloqué sa général tur yëpp envoyé nañ ma ko maa ngi leen di alerte képp koo xamante ni yaa ngi woote woo ak sëriñ ne da ngay faj aajo soo mun ta faj ajo génneel ci ak sëriñ dem liggéey wala nga dem seeta leneen waaye nekk ci biir liggéey bi di ko yàq ñun ñi nga xamante ni suñuy maam ci lañ nekkoon bind ci ay téere bàyyi fi ñëpp xamee ñu ko nga xam ne duñ présenté suñu bopp fenn ci réew mi taxaw temm ci loolu jógee fi lii nag alerte la képp koo xamante ni yaa ngi jëflanteeg ku mu mën di doon ci réew mi ndax déggante naa ku ne ba Allemagne ba bitim réew fu mu mën nekk ñu may kalaame ay nit di ma jox seeni tur tey rek dinaa leen la yàlla suñu su ma génnaatee naa tudd ay tur ay tur Sénégal Sénégal loolu loolu fan la tege nit am ajo man ngaa nax ku ne waaye ki gën a doy waar ci ki ngay ndax mooy ki nga xamante ni dafa am dafa jaaxle pare am aajo Sénégal nit mën naa am ajo ci rek fekk du jaaxle hmm. kooku sax nga nax ko ñu ne tane na donte nax taniwul fenn waaye ki jaaxle ba pare jaaxle am jafe-jafe am problème jaaxle xool la am ci yow yaakaar sa digg diggam ak boromam jël sa numéro wala téléphone tawat la euh, jàngoroom tawat la yitteem tawat la bëgg-bëggam ngay nga ne ab sëriñ nga mu yónnee la nga boole ko ko yónnee la xaalis nga boole ko ko yónnee la doona man a woowaat loolu billaahi la si laa ilaa xayruhu dafiy jóge wala ñun ñii ñu taxaw ji ko fi macha allah loolu day leer yi am solo la euh, ba tey dañuy continuer ak yow ci ñi xam te ne day bëgg am doom mais duñu mën a am doom dañu dafa am ñu nekk ci néegu sëy te mënuñoo am doom ñu ci bari te takkiinu takkiinu sa sa sëy ba la. ci takkiinu sëy ba. en général nit bu ñu la ko mayee. bala ngaa jëflanteeg moom dara danga nga war a aar bopp ba pare aar ko hmm. ndax doomu aadama yàlla du ko bindee ay gaaf. ay gaaf képp ku bépp góor général bu takk soxna euh, ren. balaa déwén soxna si am na fu mu ko fu ko war a yóbbu moo xam ci kaw wala ci wala mu delloo ginnaaw moo xam mu avancé loo ko wala mu delloo ginnaaw waaye soxna ku ko takk ren ba déwén mu bàyyi la fa nga nekkoon loolu amul fenn mm-hmm. force da ngay dellu mm-hmm. sox soxna mm-hmm. am na gaaf gu nekk ci moom am gaaf gu nekk ci yow loolu mag ñi daa nañ ko waajal aw waajalin xam ne bala ngeen jaxasoo yéen ñaar ku nekk da nga dindi loolu ba kenn mën a porté sa morom am na yoo xam ne takkiinu tamit ci wàllu cat coow lu bari li ak wax jeeg cat gi day dem ba dugg ci loolu mooy gis nga bëkki dem bu yàgg koo xam ne ah. dañ koo takk mu def mariage samedi dimanche mu wàcc liggéey mariage ba lam ca lam coow laak cat li nag boo ko àttanut mhm. li gën a néew ci li muy def mooy day far sa moo tax yàlla yàlla dogal na ñu ngi ci liggéey ak fas goo xamante ni képp koo xamante yaa ngi ci biirub sëy te bëggu njaboot billaahi la si laa laa xeeruxoo buñ ci deflantee boo ko takkee di nga jot ëmb te fas gi nag buñ koy joxe sax dañ naan la ñu joxeel xaaj weexal yi nga jëfandikoo mm. boo jotee ëmb nga xaaj bi ah, xanaa loolu moom lu gën a wér Euh, macha allah euh, ba tey dañuy ñëw ci façon càngat yi xam na koy faral di def. bu dee càngat moom ñaar lañ ci def. Mm-hmm. muy càngatu fattu ak càngatu muslaay. Mm-hmm. doomu aadama bu ci nekk day soxla ñaar yooyu muy fattu ak muslaay. Mm-hmm. fattu mooy ubbee ko nit ki nit ki léeg-léeg ay mbiram taxaw. muy liggéey yëf yi dox ba saag taxaw. muy lijjanti yëf yi di sotti ba saag mu taxaw. nit day dem ba saag day tëju ndax dafa ay bunt yuy ubbee ci moom ay bunt yu tëju moom muy rawxaani yi ak xuddaam yi. bu fekkente ne côté côté côté rawxaan yi dafa tëju dafa war dafa laaj mu ubbeeku ubbeeku na des na ko def ci sarax des na ko def ci càngat waaye nit ki bala ñoo jëflanteeg moom ci loolu dañ koy seetal ba pare xool xuddaamam rawxaanam lan mooy sarax yi ak lu mu war a def su boobaa bu dee sangu la bu ñu la joxee sangat boo koy sangu di tijjeeku sangat gi ñetti fan du ko mat mu tijjeeku. macha allah bu dee muslaay tamit noonu. Euh, ba tey dañu continuer ak yow ci mbirum bayra parce que dañoo gis euh, mel ni Ousmane Sonko ndeysaan askan bi yëpp topp nañ ko ñëpp wuti nañ ko maanaam bayra bu mel noonu ko Ousmane Sonko bi am. bayra sëñ général moo gën a yomb ci mboolem li ñu liggéey. Mhm. waaye nag mën nañoo wax ne moo gën a jafe. moo gën ndax xam-xam daa soriwul. daa soriwul tey su la wanoon ni may liggéeyee bayra nga nga ne déedéet lii mu ta doon bayra waaye xam-xam moo làkku li ma lay wax nii général ci gaynde ci deru gaynde ci deru gaynde mhm. ci deru gaynde mhm. ak xolub bëy xam nga ne bëy daa bëri coow bëy kenn mënu koo jël te te coowut ba mm. bëy coow loolu da topp waaye fit gi ak weg gi ci deru gaynde bi da lay topp yii la ñuy jël composé ko ci ay ayat alxuraan yu yu làqu ak ay tur yàlla général mm-hmm. billaahi la si laa ilaa xayruhu lii képp koo koy defal te te te te te pariwul wala amul lu ëpp 30 boo ko defalee balaa am 40 ans mu wàcc liggéey barki Seexul Xadim nit ñi nit ñi danañ la bëgg danañ la topp te li doy waar mooy dañ lay yéene seen alal dañu lay yéene seen alal ndax bayra ñaar la am na bayra boo xam ne amul njariñ ay ay nit nga ci am waaye nit ñi duñ am njariñ dañ lay topp di coow rek mooy artistes yi nga gis ak yenn star yu bari nga xam ne yoruñ dara te ñëpp xam nañ leen mhm. waaye bayra bi ñu joxe coow da topp ni bëy bëree coow waaye nit ñi dañ la wekk fonk la comme ni ñu wegee gaynde ak fonk mhm. moo tax bayra la boo xamante ni képp koo xamante ni jëflante nañ ci mhm. bu dee bayra képp moo la tax pour réew mi xam na réew mi dañ la xam ak bitim réew macha allah ku wax bayra di nga wax wax coow di nga wax cat ku cat jàpp bayre boob moom kenn du ko laal te amoo cat bayra bi ak cat gi ñoo ànd mm-hmm. lu ñuy sangool ak lu ñuy takk li li ñuy takk moom mooy bayra bi waaye li ñuy sangoo mooy cat li mooy dindi cat mooy dindi cat mm-hmm. moom nag saa soo ko takkee weer wu ne da ngaa a war a sangu ci loolu ñett yoon ci bis bi mm-hmm. muy suba midi ak guddi gi ak guddi guddi gi booy tëdd ñoom ñaar ñooñu la ñuy boole fas yéene wu ñoo jox kenn bayra te duñ ko boole cat ndax nit boo ko joxee bayra ak cat mi ngi mel ne nga rëbbiloo ko pare joxoo ko ngàndaay booy gee dañ koy jam rek macha allah euh, am na solo trop euh, ba tey dañuy continuer ci mbirum kaaraange ci façon domba yi ngay joxe ak jaaro yi est-ce que ngay joxe jaaro yoo xamante ni day boole ñaar day dox ci cat ak euh, dox ci kaaraange aussi. général sëriñ su bari xàmme wuñ jaaro kuñ kuñ kuñ gis rek jox ko jaaro hmm. général nit ku ne am na jaaro boppam waaye am na peru boppam hmm. gis nga per yi. nit ku nekk dafa am ab per bu mu war a takk. Hmm. loolu nag ñu ngi koy ñu ngi koy xamee ci xelmu nujum muy xam-xamu biddiw mm-hmm. boo xamee biddiwam doomu aadama ba pare mm-hmm. xam ab xam mm-hmm. war ngaa xam ban cuuraay moom lay daf xam ban cuuraay moom lay jalboo jaaro bi mu war a takkit war ngaa xam ban peru jaaro la war a doon nit ko ne dafa am ab peru jaaro bu mu war a takk loolu nag seetlu naa sëriñ si bari xamuñu ko ndax la léeg-léeg nit ñëw toog takk ab jaaro ma jël turam xool ko ci mbirum xel mën a joom xam-xam bi gis na jaaro bi mu takk da koy tëj waaye da ko ubbi su ma ko leerlee ba mu xam ko sax day am lu ko métti am na ñu bari ñoo xam ne seeni jaaro fii lañ ko bàyyi ma tekk jaaro bi leen bi leen bi leen war a ubbi jox leen ko mm. loolu nag maa ngi ci bàyyiloo xel sëriñ bu baax a baax a per daa am solo ci ci ci aadama mm-hmm. ndax yàlla deful dara muy asar oh, macha allah dañuy continuer ak yow ba tey ci mbirum noob noob bi xamante ni sëriñ yu bari ñu ngi koy woote woo ci askan bi it soxla nañ ko daan noobal moo suwaat mu nekk ki nga bëgg wala sa jabar xam xam noob moom gis naa ñu bari di ko maye waaye man du ma maye xam xam noob ndax noob noob général ku xam li ci nekk doo ko mayee doo ko mayee ci mbedd mi ku ne ku ne di ko def hmm. sëriñ si bari nag xàmmewuñ noot ak noob c'est général ak noot bokkuñ bokkul déedéet noot mooy noot nootal ma sama patron bi ndax ndax mu jël ma ma liggéey hmm. noot mooy nootal ma président bi ndax mu nome ma nootal ma diw mu jox ma dara loolu mën naa am ci diggante ku ne hmm. waaye général nopp nit mi ngi koy def ci diggante ki mu bëgg moo xam ku mu bëgg a takk jabar wala jigéen gi koo xamante ni moom la bëgg mu takk ko comme comme kër mm-hmm. loolu la ñuy woowee nopp mm-hmm. nopp nag nekk lu yomb waaye xaw a jafe lool ndax wax naa ko sàng xam-xam dafa làqu mm-hmm. xam-xam dalay jege lool waaye dalay sori lool lii waral sori gi mooy ñàkk xam gi ko ñàkk xam waaye bu ñu demoon ba jàngaloo ko nga xam ne lii jafewul waaye xamoo ko woon nopp dañ ciy def ñaar koo xamante ni farata moo ko tax a jóg ak koo xamante ni dafa nekk ci ci sëy loolu moom dañ cee sawar ba nga xamante ni daanaka duñ xaar sax nga ñu ci jox dara wala ñu ci jëflante muy kuy sëy sëy ba am problème borom këram wan ko ginnaaw wala borom këram takk kaneen bàyyi ko fi wala mënut a jot ci borom kër billaahi la si laa ilaaha xayruhu ñi ngi teg fas goo xamante ni boo ko takkee ci sa ndigg yow ko jigéen ki hmm. ni la fas gi jegee noonu la sa borom kër di jege fu mu man di nekk ci réew mi boo ko woowoo ñëw boo ko soxlaa gis ko macha allah am na solo trop loolu mo nopp képp koo xam ne soxla nga numéro Serigne Euh, Kaye baax mu ngi daw ci suuf dañuy continuer ak yow ba tey ci mbirum papier yi bëgg a tukki ñi ngi Europe bëgg a ñëw Sénégal mbirum këyit daf leen a jafe. mbirum këyit euh, général bi sat ma dimbale ci nit ñi maye naa ci ay sarax ndax ñu baree baree bari yoon wi ngi leen teg luñ ci tege ndax nag dañ koy faral di wax dañ may woow duñ ma jot yu bari dañ koy wax yaa ma koy wax sànq. nit laa koo xamante ni man damaa respecté liggéeyu jàmbur képp koo xamante ni jëflante na moom fii ak lañ jëflante parewul du ma jël keneen mm-hmm. kon bis bi boo boo xool boo ci jëlee ñaar fukki nit wala fukki nit ak juróom day mel ne doo sañ jël ñeneen. Hmm. ndax ngir bëgg a respecté ñooñu lañ leen wax. Hmm. amul benn client boo xam dañuy jëflante ak moom nga ñu woo doo jot wala ngay boole ko wala lu mën doon amut amut ndax kenn yorul suñ suñu suñu wërsëg kenn yorul suñu njariñ yaakaaruñ ci kenn lenn ku dul subhanahu wa taala hmm. général. Uh-huh. këyit képp koo xamante ni bëgg na ko sarax bi maa ko maye ngir ku mënta jot ci man bu déggee lii mu mën koo def te yàlla tax. ndax këyit nag daa am solo général nit jugee fii tukki dem wuti bàyyee fi ndey bàyyi fi bàyyi bàyyi fi doom bàyyi fi lépp wallaahi lancim bàyyi bàyyi sa jabar lu mat fukki at bëgg koo gis mënoo koo teg bët ndax lan ndax amoo këyit goo ñëwee te boo paasee ñoo amaana doo mën a dellu hmm. loolu ku ci taxawu nit di ku ci laaj yenn yi daa fekk yow pare woo pour liggéeyal yàlla ci métier bi nga nekk macha allah këyit paquetu këyit uh, maaraabu yi moom ngay jënd hmm. ak paquetu tàndarma hmm. ak paquetu tàngal kilo gura nga boole ko fas ci li nga bëgg nga saraxe ko lii képp koy def di lijjanti kay suñ borom dina ko baax na kooku mën di sarax baax na macha allah euh, am na solo trop euh, ba tey dañuy ko nekk yow ci liggéey bi ngay liggéey balaa nga ciy liggéey kenn da nga koy seetal pare wala waaw nit ku goo dem na ngay jaar ci bunt ba hmm. door egg ci biir hmm. lu ko may boo tëbee miir mën nañ laa du dóor bal foog la koy sàcc wala ñu hmm. xaañ la xeer te fa nga jëm mën nga faa bañ a egg képp koo xamante ni déggante nañ mu ne ma mu ne ma sëñ seexu naa ma ne ko diw mu ne ma nangam sàngam dama naan ko dañ koy xool xam ban buntu lañ ci jaar xool ba xam say mbir mën nañ cee jublu am déet léeg tamit nit ñu xool mbiram ba gis ko war koo ñaanal suñ kurus du nangu. du nangu day bañ suñ kurus bu yaakaar ne ku ñu lay ñaanal rek. mais su bañee aussi mën nga jaar moo moom beneen yoon. su bañee su bañee dañ naan kurus gi bañ na. Uh-huh. su parce que nag bu fekkente ne kurus ko war a ñaanal laa wax ndax am na ci ñoo xamante ni général jërub ñuy sangu ndax sangu du defar seen i mbir mm-hmm. jërub ñuy saraxe saraxe du defar seen i mbir jërub ñuy suulu sangara am na ñoo xamante ni xalwata nga leen dugal jàppal leen kurus ju juróom-ñetti fan mm-hmm. billaahi lesi laa ilaa xeyroxoo saa su wen deux heures jotee wala quatre heures du matin suñu borom wan la ay mbiram wan lay saraxam nga koy génnal boo noppee ci moom mbooleem lu nekkoon ci moom daan tàqali koog moom am na ci ñoo xam ne jërul ngay téye kurus di jox leen ñu sangu jox leen ñu naan loolu daa ci doomu aadama léegi nag bu ñu la xoolee ba xam ne yow kurus moo a war a liggéeyal danañ laaj suñ kurus ba xam nangu na am déet mm-hmm. bu suñ kurus nangoo alhamdulilah rabbil alamin mën nañ laa boole koo xam ne day jàpp nañ ne boo jëflanteeg moom sa sa kurus nag waaye duñ ah, jël kenn nag waaw duñ jël kenn bu yaakaar ne parfois nga liggéey ak kenn ngeen xam ne aajo waru fajoo ci yéen. du jeex du jeex nit ñëw na liggéeyloo ma ma mm-hmm. seetal ko ba gis ay mbiram mu ne ma da xanaa da nga dëkk ak ma ne ma noonu ci mbir mi ma ne ko xanaa ma laaj sama kurus ba xam mën naa la cee jàppale déet te hmm. billaahi la si laa ilaa laaj naa kurus gi ñett yoon ci aw yoon bu ma ko jaaree waaye wan na man ne kii waroo faj aajom ma ma ma woo ko ba mu ñëw ma wax ko mu ne ma dimbale ma sëñ ma ne ko lenn laa man muy mën naa laa baaloog ñoo xam ne jàpp naa ne boo jëflante ak ñoom saajo dana waaye man moom bu dee dëgg rek laa la bëgg a loolu loolu loolu def gi yàq dara ndax suñu borom moom mooy maye waaw te da liñ man rek lañ mën a dimbalee nit ah, macha allah am na solo trop dañu ñëw ak yow ci mbirum ngóora te ku wax ngóora di nga wax mbirum oméro ak siti mbirum ngóor moom dafa am lool mhm. waaye alhamdulilah rabbil alamin euh, général fii may waxee yow nii mhm. ñi ngi liggéeyaat euh, jàllabe bi bi waxoon keroog mhm. muy fas gi ñu koy liggéeyee ci ci deru deru gileem gu jigéen ak wasosoor xam nga ne wasosoor bokk na ci ci garab gi gën a dëgër waaye xam nga ne deru deru gileem itam xayum xas boog laa bëgg a wax bokk na ci ci ci ci ci rabi àll yi ñëpp doole mhm. loolu ñu ci liggéey fas goo xamante ni amul amul amul da koy takk di néew kàttan wala da koy takk di am kàttan déedéet da nga koy takk sëy ba ba ba doyal tekki nga wàcc mhm. moom moom lu ko gën a gaaw amut du la jox du la jox ngay takk mhm. du ma la jox ngay naan duma la jox ngay sangu du ma la jox dara nga koy def di ci ay yeneen problème fas gi da koy takk sëy ba bëgg a wàcc tekki ko soo paree nga denc. macha allah bañ nag ku mu jëflanteel naa la wax li fas li fas gi di bañ. ngir nga mm. maytu ko. am na solo trop macha allah euh, dan bàyyi nga joxe sa jàngat ci réew mi balaa ngay tàggatoo. jàngat bi ñu am ci réew mi lu dul ku ne ñaan jàmm ci réew mi. Mm-hmm. ndax jàmm ci ku ne lay commencé. Macky Sall su bëggee réew mi am jàmm te nit ñi sax pare ñu am jàmm du am jàmm. Mm-hmm. Ousmane Sonko itam noonu waaye ku nekk nañ julli ñaan yàlla suñu borom def jàmm ci réew mi. général lii may wallahi alazim bu ko yàlla xamaloon ñëpp danañ xam ne àdduna jaru ko àdduna jaru ko alal jaru ko dund gu stable jaru ko développement sax da da koo jarul ndax développement fu mu nekk jàmm dafa war a jiitu nañ ñaan jàmm ci réew mi